am na lool sax waaye jigéen ñi la gën a bare. jigéen boo xam ne góor da koy gis bëgg ko dëj ko bu maanaam bu ko takkul keneen du ko takk bu ko takkul keneen du ko takk bari na aussi itam gis nga koo xam ne jógee na ci sëy a amaat beneen sëy wala koo xam ne jógee na ci sëy bu mu duggaat mooy loolu du sëy ba du toog gis koo xam ne aussi problème am mooy lenn moom d'accord moom dana liggéey dana am waaye liggéeyam moom buy am itam mooy loolu ni muy duggee ci loxoom noonu rek lay génn waat mm-hmm. du ko jëriñoo

26 78. d' accord bamtu ko. 77. 641 26 78. d' accord waaw ànd ak loolu lépp rek damay faral di wax istixaar moom jàngale woon naa ko fi keroog. ko fi keroog fii nii. Mhm. am na ñu may woone ma ku ko bëgg a xam daal ngay aaya ba mujj. Mhm. te ilahi yuraddu hilmu saaxa di jëm suura. aaya boobu ngay jël. mun maa doon di ko jàngoon jeex boo demee ca boobu laa ko da nga koo fekk. Mhm. dama ko waxoon fàttewuleen ko defe naa. d' Mhm. Mhm. Mhm. soo ko defee baax na waaye isa yi ma leen joxoon moom saa yoo ko defee da nga gis mandarga sa bopp d'accord yëpp jigéen joo xam ne bëgg ngaa am borom kër la lool lool lool lool lool nag dégg nga da ngay da ngay bind rek alam na jaxanel arda mi xeeta d'accord alam na jaxanel arda mi xeeta miin gi ngay def sa tur def ko la ñuy wax téere tilimu tàgg ko balaa moom balaa téere baa yàgg nga am borom kër boo ko bëggee waaye jigéen bari nag sëy moom naa la. d'accord Mbacke ñu ne nga bamtuwaat euh, numéro bi. waaw 77 la. 641. Uh-huh. 26. 78 jërëjëf jërëjëf euh, Mbacke ñu ngi lay jaajëfal bu baax Cheikh Ousmane ñu bàyyi la ba euh, jeudi aywa Cheikh Ousmane bu ñu pon jeudi. non jeudi bi damay ñëw. day day day eh, ñëw incha allah incha allah sama connexion moom bi ma ko fay xam naa. <laughs> <laughs> toogee guddi ba wér daal damay seet émission bu gudd rek. macha allah ma toog ko di jërëjëf da baax rek da ñaax ci daan yàlla xam na ni. sëñ Abo mi ngi lay nuyu. jërëjëf da baax rek waaye ñun ñi noonu la lay suivre tamit. mag lay gërëm Nabou. di gërëm soxna Mami di gërëm. góone borom dossier mhm. Pa Ousmane da lay ëttal ci biir bi <laughs> tàcc la waaye foo jaar ñu am émission bu mu nekkul baax di may nelaw rek moom at tout moment mën na maa yee <laughs> gërëm sénégalais yi doon suivre yëpp ñu ci réew mi comme ñu ci diaspora bi vraiment di leen indil tamit ay nuyu seen ay soppe yu bëri ah vraiment saa yi ñu waree def matinal dinañ jot nuyu soppe yu bëri bëri rawatina nag ñu nekk ci diaspora bi mhm. waxtu nekk dañuy béggee émission bi di ko suivre macha allah ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant di mhm. leen jox rendez-vous jeudi incha allah style euh, 2000 ah kii numéro ñu may ko. bu dee ko publicité. damay fay dafa cher. ah dangay fay non non non ko joxee ko. waaw mën nga sañse nag. mën nga sañse te foofu la yem du dëkk. mooy may ko ci defate wuy ma comme comme du ngeen di man de dama koy wax sama sama grand frère bu la ñawalee fayeeku la ma fay ba pare mu ne ma defal ma pub ma ne ko yow comprendre sax <laughs> man bu ma man bu ma fayee moom dama ko defal ay pub mu am ay retour yu bari bañ a wàññi ah, ah noonu la ñuy def loolu bu nit ma téye sama loxo ne loolooy ful Euh, Nabu Nabu création ah, moo ñuy moo ñuy solal. la allah moo solal te kooku jar naa defal pub. waaw ah, ah, kooku jar naa defal non non Nabu création du man. du man jeex na jeex na. moom kay euh, dégg na ko te xam naa ne dugg ci ci ci nopp ku tax. te comme ñu ngi jëm màggal. waaw waaw mënta ñàkk mënta ñàkk ñàkk incha tey la safar bi tàmbalee. premier safar du mbirum mouridisme mhm. euh, mbirum africanisme la waaye mbirum nit ku ñuul la mhm. ndax koo xam ne la ni ko tubaab bi di amoon moom problème mhm. dooyee wuñ ko woon l'islam moo koy faral di wax tout le temps nit ñi di amoon moom problème parce que sëñ Tuubaa ba doon l'islam a tax ñu jàpp tubaab bi bato bi ñu bari lañ ci dugal parce que nekk fóon moom dong di dund l'islam vi moom sax moom ci jëmmam dafa jur du fekk fi l'islam ci la fekk baayam fekk ci ay maamam fekk ci mag ñu ñëpp dem jàppi ko léegi loolu problème la boo xam ne dama koy faral di wax mooy panafricanisme la boo xam ne gis nañu ne développement africanisme moom lay moom moom lay moom lay provoqué. Mhm. wax na ci benn xasiidaam boo xam ne Alaaji Ibrahima Ñas euh, dugal na ko ci mbindam. Mhm. mooy bi naan wala suñu suñu gis mi. waxaa waxu ma nu ko wane waxaa la xaj mu taaxa waxu ma nu ko waxee. ba ne waxaa ci ruuxul adab la ko ruuxul adab indi ko fa. ne sëñ Tuubaa wax ji may wax ni tumuraanke li ma jiitu. waaw borom xam-xam bu mag. bu ñu wax xaadimu taaxa xaadimu taaxa. wax na ko waxoon na ko. macha allah dafa nekk xam-xamu réew mi. waaw kay noonu la koy def. waaw ça va man damay nit ku ñuul man sëñ Tuubaa taxul man dañ maa war a indi benn manque de considération tuuti ci xam-xam. waaw wax wax na lu mel noonu. Hmm. wax na ne bi tubaab yi di Sénégal naa wax na ne tubaab yi man jox ma leen respect moom sëñ Tuubaa moo ko wax de sëñ Tuubaa nee na tubaab bu yorul gànnaay kenn gënu ko ragal hmm. nee na xaraf dong duñ ko def uffin li xaw min asrako usukóoroom xulfanu kullun jumbaonumakaa bit mm-hmm. sañ tubaab neen tubaab dafa ragal ba du xaraf waaw neen ko yorut gànnaay moo fi gën a ragal moom tubaab ba doxal uffin lexaw min asra koo wasu koo xul fun ci arab mooy ku nangu taxara xoolal nam defoon waa caaroy 44 rek mu xeexal ko ba soxla mu dégg de ñoom ñëpp kullu ñoom ñëpp ay bokkat la boo xam ne ne ñoom eggoon nañ ci Sénégal bi mhm. ñu gisee defe ne yàlla mhm. wa min humoo nit ñi man in raa nasraan bu ñu gisee tubaab rek dañuy defe ne yaxsibu min malaa'ikatu rahmaan macha allah kooku nag tey moom la ñuy waajal bisam. Mhm. mooy loo xam lu panafricaniste la. Mhm. boo demee Touba chrétien yaa nga fa di mhm. màggal si. tijaan yi ñaa ngi fa di màggal si. macha allah maam uh, xaadir ñaa ngi fa di màggal si. laayeen ñi ne a a ko bokk. ñëpp a ko bokk projet de société la yor. projet de boo xam ne. waxoon na ko doon bokk leen doon benn. yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm. amiin yaa rabbi benn làmbe bu génn boo xam ne ni mu ni mu réassuré bëgg delloo nit ñi ci ay polémique la jaar ko ci côté religion. jaarul sax mais moom moo ko gën a xam ne. Mhm. christianisme ak musulman. Mhm. amul problème ci lu ëpp daanu lañ ci pièce mhm. dañ cee daan que tontu bi du tontu bu baaxul. ni ñu ko tontu bi du tontu bi du loolu. loolu tontu bi moom dañ daanu foofu bu baax ñoo daan tontu bi benn politicien la bu am problème ak eh, politique wax politique ñu ko tontu ci chambre nga jël postiram moom en tant que labbe bëgg ko du ko tontu benn diine voilà fekk du loolu loolu erreur dëgg la gars yi tu as bien fait fulu loolu loolu lañ cee bàyyi xel fi nga gis buñ moytoo mbirum xeet mhm. moytoo mbirum tarixa moytu mbirum diine mhm. yàlla xam ne danañ avancé yàlla dinañu muccal jërëjëf privé catholique ci quatre ah, ñu ci kenn delloo nañu na solo lool lool ay ca ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ah, di ñaan ñu yegg ci euh, jàmm et à demain inchallah incha allah rabbi passez une excellente journée. jërëjëf merci tout le monde merci beaucoup jaam waa jërëjëf. ni ma yow maa ngi xaar ba ma ne la à demain. gërëm sant ñëpp jërëjëf kilifa yi. waaw naa la gërëm bu baax. gërëma sëñ bi. sëñ bi maa ngi koy gërëm bu baax. béy ko béy ko nuyoo Mbacke Balla di ko beral nuyoo bu baax. yëg na xew mi. waaw waaw waaw ah jërëjëf. internet yi rek nga ko waxagul waaw. Ngone internet yi rek nga ko waxagul ñoom